bien sûr booy xool ñi ngi wane tabax bi fi ñu ko suul fi ñu ko denc. Mhm. aussi tamit denc bi denc yàkkamti la. Mhm. parce que xóotul pax bi xóotul bu pax bi xóotoon dëgg dëgg dëgg duñu xam exactement ku ne foofu noonu parce que bala ñoo gas ba fay yegg un moins nit ñi danañ dañu dañu revenir wala ki moom ki ñu suul waajuram wala mbokkam ci bàmmeel boobu bu ñëwee daf naan bu leen suuli parce que yaakaar ne mbokkam ba moom lañ moom lañ moom lañ bëgg a sulli mhm. parce que du xam lu xew euh, kii wax na ko léegi maanaam armeel yooyu ay tubaab ñoo ñëwoon bu njëkk indi ko def armeelu chrétien yi armeelu jullit yi am benn espace bu ñu jaarale seen diggante espace bu espace bu ñu jaarale seen diggante ci lotissement wu jalañ génn booy xool armeel yi nekkul biir lew na armeel yi jalañ la nekk tali bi dox ci armeel yi moo séparé lew na ak jalañ mais nag maam Rajab Laay Ñas mooy wayjuru Baay Ñas ak maam Xalifa Ñas maam Rajab Laay Ñas 1911 ci la ñëw yeesalaat ko rëddaat ko bi mu ko yeesalee rëddaat ko nag fi féetoo penku bi fi la def lu ñuy wax fidaaw mhm. ne côté bi man Abdou fidaawu naa ko am wax yu mu ca wax yoo xam ne du waxu télé. léegi nag maanaam bi loolu amee la ca ëpp ña cay toppatoo ña cay bay bu bu maanaam bu nawet wàccee ñuy naanaat nangam taalibe ñi seen ñi moo dem bañ tuddee armelu armelu ñeseen mais armel yi moom bu njëkk ak léegi maanaam ñëpp a fay suul si du ñeseen du kenn ñoo ko moom mhm. parce que aussi tamit doxewul ci autorité wu xalifa bi mhm. armel yi doxewul ci autorité wu xalifa bi mhm. pour muy leer autorité maire yi lay doxee léegi nag bu fekkee doxewul ci autorité xalifa bi problème am ñu ne waa lew na ñeseen yi parce que ça veut dire dafa dem ba siiw ci armelu ñeseen yi mais maanaam man xalifa bi ma xam mhm. suñu xalifa man laa wax de xalifa général de lew na ñeseen Cheikh Tidiane xalifa Niass boo doon rey mbóot ci kanamam sax yaramam yi day daw mhm. billaahi wa rabbul kaaba seedewuma lu ma xamul mhm. ba benn ñetteel bi mooy maanaam nañuy bàyyi bu problème amee ñu bëgg cee dugal loo xam ni bokkul ci problème ba loolu dafay gën a yokkaat problème. loo xamante ni bokkul ci problème bi. bien sûr mooy li ma wax léegi rek ay waxu waa lew na yaag waa nangam yaag genre nangam nangam. moom génn sa génn na communiqué. sax pour euh, ah. hmm. parce que parce que tey kilifa moomul sax weddi communiqué la mun la mun def mais ñun ñu ay njabootam bu ñu toogee télé. ñi ne leen. Mhm. lii du jëfu xalifa bi. yeblewu ko diglewu ko. Hmm. parce que booy yeble di digle da ngay digle te wala nga yeble loo xam ne fekkoon nga say bàyyi di ko def wala say maam. benn ñetteel ba mooy gis nga armeel yooya maam El Hadj Abdoulaye Niass ay soxnaam yépp fa lañ tëdd. Hmm. maam Astou Diankha fa la tëdd muy waajuru Mawlana Cheikh Ibrahima. Hmm. Hmm. maam Khalifa Niass radiyallahu anhu fa la waajuram mu jigéen tëdd. ay euh, doomu Cheikh Amar Foutiyu Taal mi ngi tëdd foofa. ay sëtu yoon yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi tëdd foofa. yaa ngi dégg ay taalibi El Hadj Malick yoo xam ne ay muqaddamu El Hadj Malick lañ yoo xam ne dañ daan teel kurus El Hadj Malick. El Hadj Malick daan leen jox ay dog ci Jawharatul Kamal ñu ko daan def ñi ngi tëdd foofa. léegi nag yow bu fekkee dangaa am lu mel noone su fekkoon nga bëgg nga mu raw da nga ñëw ci ñu xam bërëb ya ne ah man kat damaa am néew te néew bi ma yor kat bëgg naa ak njëggal ci moom waaye nii ak nii ak nii expliquer ci sutura ci sutura mhm. bu boobaa nag man man de la la ma xam ca kilifa ga mag ga fa ne kon dana ne la all all euh, préfet préfet bu ko laajee dana na ko denc ko ba bis nangam dana la wax ne nañ xool nu ñu ko def ba denc ko ba sutura te kenn du ko yëg